taux de bi mën na wàññeeku ndaw yi mun nañu am xëy ba nga xamante ni kenn dootul jël ci gaal yi yëpp Europe. voilà loolu mu nekk question bu am importance parce que fu ñu waxee ressource rek war nañ mën a xol lan la rentabilité bi nga xamante ne koy am ci population bi sànq wax naa la ko bu ñu defee kii bi raffinage bi ba pare dérivé yi ñu ciy am xam nga ñoom ñooy dem ci station yi donc station ñun mën nañ gën a élargir les stations. Hmm. bu ñu élargir les stations stations yi bu ñu leen élargir ñu mën a jël yeneen jeunes dugal leen station yi. centrales électriques yi ñu gën leen élargir ba zone yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk zone yi nga xam ne dañoo reculer ñu mën a am euh, li nga xamante ne mooy électricité bi. Mhm. comment nga jël yeneen jeunes. Mhm. yi nga xamante ne dañu leen former euh, ci côté électricité ñooñu da nga leen mën a jël ci projet yooyu noonu ñu dem di liggéey euh, ci ci kii bi ci zone yooyu noonu nga xam ne dañoo reculer point mooy maanaam boo élargir les centrales électriques bi ci tegu mooy que gaz butane bi nga xam ne tey dañu koy jënd lu cher parce que lan moo tax gaz bilan bi di jàddu cher c'est parce que on est obligé d'importer pétrole brut en fait mu ñëw raffinerie bi nekk mbaaw ñu raffiné ko ba pare ñu doog ñu doog a mën am gaz bilan bi ñu soxla mhm. te loolu nag boo xoolee transport bi ngay def bu dee Allemagne nga jëlee pétrole brut boobu noonu transport bi ba dédouanement bi yooyu yëpp loolu dañ koy comptabiliser taxes yi nga xamante ni après bu ñuy jaay le peuple le peuple sénégalais koy jaay euh, li nga xamante ni mooy produit boobu noonu da dañuy comptabiliser seen taxes yooyu noonu donc ga euh, pétrole brut à l'étranger pour mu ñëw fii di ko di ko donc fii lañ koy jëlee donc taxe yi nga xamante ne da doon coûter. day teggeeku day teggeeku. Mhm. donc loolu merci mhm. gaz bi foofu lay wàññ foofu lay commencé di di wàññeeku. Mhm. nga dem si beneen bi nga xamante ne mooy gasoil bi ñuy utiliser pour oto yi euh, wala moto yi cek cek maan yi quoi donc tey bu dee da ngay jëndee litre mille deux cent essence maintenant. taxe yi nga xamante ni euh, compagnie bi de euh, entreprise bi da doon jële en l'étranger wàcc na ko maintenant maintenant l'État da koy da da koy da mu ne ko na nga wàññi vu que taxe yi nga doon taxe yi la doon yi la doon teg wàcc na la maintenant donc da ngay wàññi essence bi donc jeune bi nga xamante ni cek-cek la yoroon mu ci liggéey chaque jour muy def 1200 francs euh, essence maintenant essence bi yóbbu wax nañ ko en 500 francs dina dese 700 francs yoo xamante ni yooyu dina ko mën a def si poche am en fait dina ko laal tamit boobu moo ci ëpp importance électricité bi. Mm-hmm. parce que boo xoolee merci parce que boo xoolee gaz naturel bi presque. loolu loolu lañ ko mën a def quoi en général loolu lañ ko mën a def mooy euh, jël ko liquéfier ko en fait ñu mën si obtenir li nga xamante ni mooy li nga xamante ni moom mooy. électricité bi na wàññeeku quoi. taux même. mel le pétrole bi la mu la mu ëmb ci biir moo bari accès à l'électricité boobu parce que on en à bu ñu si on se fie aux statistiques yoo xam ne am nañ ko 43 pour cent ba léegi. am na ñu des waaw ñi amul électricité ñoo ëpp ñi am. waaw même sama village amul électricité. sa village fan la village ça euh, la région de Louga département de Louga arrondissement Kër Momar Sarr. Hmm. Euh, commune de Gandé foofu amagul électricité moom te nga xool donc tey gaz naturel bi bu génnoon tey. Euh, ñu def ko euh, ñu def ko dans les centrales électriques donc zone yu reculé yooyu noonu danañ leen mën danañ mën a mhm. bénéficier wu. alors nga xamante ni moom mooy. Euh, fi ñuy jeexalee ak yow. Kajo c'est bon fi ñuy jeexalee ak yow. Mhm. lan ngeen di xaar ci gouvernement bu bees bi et surtout ministre bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllum pétrole ak lépp lu aaju ci biir muy biram Souleye. merci moom appel bi ñu koy lancé mooy kon nag gën a assister les professionnels. wala même le euh, les étudiants yi nga xamante ni actuellement ni ngi nekk di def formation formation dans le domaine du pétrole et des énergies na leen accompagner euh, même bu laajee sax ñu jox leen ay bourses étrangers ñu à l' étranger. ngeen jàngi ñu jàngi. loolu am na Euh, maa ngi jàngee fii nii Soga après lycée de la Fosse fi ma amee euh, sama euh, sama diplôme en chimie après Soga laa intégré Sénégal Oil and Gas Academy. Mhm. foofu laa amee sama diplôme technicien supérieur en fait ñu mën a doog intégré dans les entreprises donc jeunes yooyu noonu nañu leen accompagner même après le DTS wala BTS. état bi jëlee yóbbu leen à l'étranger parce que man damay wax ne kii bi nañ ko stand sax projet Sangomar bi ak projet GTA bi loolu lañ leen teg à côté am na yeneen projet yu ëpp important yaakaar teraanga fii ak 2028 nañ dem former ay ingénieurs dans le domaine mais mais est-ce que yéen a ngi dem dans ce sens là parce que ndimbal aussi na cay fekk loxoy boroom bien sûr ñu ngi ciy def lu ñu mën ñu ngi organiser ci séminaire di mettre les jeunes au courant lépp li nga xamante ni euh, importance si former wu dans le domaine du pétrole ne